félicitations. merci beaucoup Pam dama mbaa sonn. demal demal Pam. Malick Ada Fass soxna ma ngi noonu di waaj soxna saa ngi noonu di waaj eh, wàccal ma verre bi wàccal ma verbe tuuti Malick Jalla ñëw na di soxna Ada Fass balaa la wote nag xam nga balaa jàmm la ndeysaan Malick ñu ngi ñaan ñaan gu solo walla si mi lisaan aada lay waxal daa mel ni de daa bëgg aada jël loolu mooy yoon aada la bëgg jël si ko jaadu na maa Jalla may ma ñaari baat rek xam nga Adama dafa Adama lañ toll. ah may ma ñaari baat. waaw waaw ah. may ma loolu ñaari baat. ah may ma ñaari baat day wàcc nii ah, dégg nga te yi nga bëgg affaire mel nag affaire na wàccee verre bi rek. waxoon eh, oui ma waxoon na wàccee verre bi. mais Adama bi ñu jël si madame. Jalla nuyu naa Jalla ñaari baat ci man nuyoo la ma waaw maa ngi mu ñëw nii yaay. waaw ah, bu ñëwee si baat bi si baat bi si baat bi. may toogal il faut nga génn noonu gars yi génn toogal bari ko muur muy sëy yàlla na ci yàlla na ci wér